mbokki Siin mbokki Saloum mbokki Sénégal déglu leen c'est important Malick qui parle ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam ñu ngi am mbégte loo xam ne tey ñu loo xam ne am na fu mu commencé waaye amul fu mu ki ñu nekk tey nag di président Macky Sall président Macky Sall yàlla def na bi mu nek secrétaire de la section communale du Fatick man ci lay dégg Malick Gueye mi président fédération département bu Kaolack même parti Macky Sall nek mam comme directeur bu parti man tok mak mom ñu siégé mam comme directeur bu parti Macky Sall nek ministre ma ñoo nek conseil du président Macky Sall nek député ma bokk mo benn assemblée nationale Macky Sall nek tay président nommé ma conseil social dama ne saa si loolu mérite ñu bari tey ci opposition dégg ñuy mbapp mbappi seen waxi caaxaan yu ñuy wax ma ne dégg na ay kuréel bu nekk juddu senegal léegi kuréel yooyu yëpp c'est faux oui ma <laughs> bu kenn yóbbu oui moom bu leen yëg kenn bu kenn yàq seen bopp ba suñu kër bi wax na ko léegi ma Sall bu nekkee ne li mu doon defal li mu doon doon ci biir courant bi da ko jaay bàyyi état bi dootul yokku bon dootu yéen dootu leen am courant te yéen ñe da war a am courant ma na ko dindi est-ce que duma ci teg Macky dolli ñu Macky doyalu ñu. Macky dolli ñu. Macky doyalu ñu. Macky dolli ñu. ma ne ma ne ma ne buñ neexee ne Macky dolli ñu ah. buñ neexee ne Macky dolli ñu Sénégal mooy mi réew mi ay doomam ñoo ko jox ku leen neex ku fal nga falu. Macky Sall moo xam ñu ngi ko jug man xaw ma ko waaye ñun doomi Sine bi Macky Sall su buggee troisième mandat bi ñuy moom damay gagné way wala non ma ne moo xam moom li mu bëgg man waxuma kenn moom la bëgg waxuma ko danga bëgg na ko waaye Malick Gueye mii taxaw su président Macky Sall le bëggoon naa beneen mandat du troisième beneen cinq la woote woon nañ ko ñaari cinq ñaari cinq ñaari la mu des ñaari cinq na ñu may jàmm ma ne ma ne ma ne Macky Sall moom la Saloum Saloum yi àndal moom la Sine Saloum àndal moom la Sine Saloum bëgg du ko bàyyi du ko bàyyi du ko bàyyi dañ jàppalante ak moom dañ jàppalante ak moom inch ba ba ba nga xam ne yàlla dogal na lim dogal waaye maa ngi koy wax ne ko Macky dolli ñu wax naa baat bi ay yoon ne leen Macky dolli ñu laa bëgg wax leen ku ma dégg Macky dolli ñu balaa suba nag balaa suba ñu su commencé ma attaqué naan Macky nga def troisième mandat Macky defagul troisième mandat déglu leen ma wax leen ñun ñoo wootee référendum ñun ñoo wootee référendum ne nañ bàyyi sept ans jël cinq commencement par bële kon kay jeex ñun ci première bi nii. eh nañu waxante dëgg rek waaye bii ñu première bi nii ah ma ne ma ne su ko neexee su ko bëggee Saloum dafay ànd ak moom dañ koy accompagner te dafay gagné. kon mbokk yi Demba bi tey yéen ñi Pape Demba yónni su ngeen demee nii na Pape Demba ne ko ñun ñu ci gannaawam ñu ci kanamam du ñu xoolaan benn lëccin di ko këf benn ñu ne la duñ nangu ku ko jege duñ nangu ku ko laal duñ nangu ku xeex ak moom doomi Sine Saalum la te Saalum dañoo soxla doomam waxoon naa leen ne leen kenn ku nekk fa nga dëkk yow yaa ko mën a defar Saalum Saalum ma ne kenn defar la nga kii bu doomu la nekkee ku leen ko dikk da leen di nax. ah ndeysaan sa dëgg-dëgg tey yaram daw na waaye nag comme que le président Macky Sall ñëwul yónni na Kouthia mu daal di koy représenté ci kàddu su ko defee nag ñu déglu président Macky Sall

koo xam ne boo ko déggee muy wax da nga yaakaar na day ñaxtu ci loo xam ne ay détail la waaye li muy wax yëpp dafa am solo man je préfère ay politiciens yu mel ne El Hadj Malick Gueye Latmingué parce que bu la wanee dara nga xam ne wax ji mu wax leer na.